Gambia adopts new petroleum license model. Uh, now, the uh, Gambia's uh, petroleum and energy minister, Fafa Sanyang, Tuesday, brief President Adama Barrow on the country's revised and amended petroleum license model, which was necessitated by the need to upgrade to international standards. This new model license is an international standard which represents an improvement on the existing one. It will hence be the basis of any future license negotiation for the Gambia, Minister Sanyan informed the President. Based on the new model, FAR Limited and Patronals now hold 50% shares each in Block A2 and A5. Furthermore, it means that the existing license of FAR and Petronas for blocks A2 and A5, which were signed in 2012, shall operate within the limits of the new license model, leading to the resumption of active exploration work on base blocks. Consequently, the participating interests in the reverse license held by FAR and Petronas are currently 52%. Uh, the government of the Gambia reversed the right to make of 15 participating interests. As, par as part of the agreement, the government will be paid a bonus of four uh, million and five hundred thousand dollars for both license along with training and resource contributions as well as surface rentals per annum other issues that the new model takes into account include introduction of additional profit capital gain tax payment requirements and restructuring after the uh, expiration period and legal uh, requirements um, that's of course a uh, new model for the Gambia. Um, you know, of course, um, as the ministre of dem na ci président Adam Barrow woon ko ci li nga xamante ne mooy ci medal bu bees bi nga xamante ne amal nañ ko réew mi gannaaw bi nga xamante ne bu fi nekk dañ ko revanche am luñ ci yokk ñu euh, jàpp ne daal jamono ji bii moom méngoo ak euh, doxalini jamono ci li nga xamante ne mooy ci ni ñoo gisee ci wàllum li nga xamante ne mooy euh, ni ñoo diilee ci wàllum diw ak yooyu lu mel noonu comme niñ ko mën a waxee affaire petroleum ak yooyu su ko defee daal jàpp na ne daal li nekk li nga xamante ne mooy li gën na ci réew mi yóbbu na ko ci président bi won ko li nga xamante ne mooy luñ ci yokk ak taxawaay bi ak lan la ci réew mi war a gisee boppam yooyu yëpp ah, mu ngi ci biir te waxtaan nañ ci eh, ci eh, gannaaw bi nga xamante ni dajee nag président Barrow foofu ci State House. waaw sëñ daf doon wax ne diine ak jamono waaye àdduna tamit day dox saa su nekk. Mm-hmm. ndax àdduna buy dox mooy lépp lu nga xam ne mooy méngoo ak doxalinu àdduna da ngay dem fekki ko bul nangu mu fekk si la. kon buñ jàppee ne jëwriñ ji nga xam ne moom moo yore wàllu pétrole ak énergie tey jii xool na àdduna bi ni muy doxee ci wàllu doxalinu lu jëm ci li nga xam ne mooy énergie ak li nga xam ne moom moo nekk pétrole te loolu jàpp nañ ne dëkk yi nga xam ne tey jii ñoom ñoo gën a am koom bu takku ci àdduna bi loola moom moo suqali seen réew. ci walu kom kom ndax bok na ci kom kom bi gën gaaw pour yobbu rew ci kanam tay buñ jappé né loola ñom fas nañ indi doxalin bu ess mengalé loolu ak doxalinu aduna bi ba lepp lu ci am rew mi gis ci bopam ci walu income ci walu li nga xam ne moom moo nekk ak li nga xam ne mooy bu ñuy japp né lu ci muñta am rew mi dina ci gis bopam ci anam bu mu doon kon segam japp na né ciambar na doxalin bobu mhm. gëstu ko ba xol mengalé ko ak doxalinu aduna bi dem jébal ko njiitu rew mi ñu ngi am njort bu rafet ne lépp lu ci feeñee ëllëg ci wàllu li nga xam ne moom moo nekk pétrole ak énergie mhm. réew mi dinañ ci gis seen bopp ba ëllëg du nekk coow lu nga xam ne dañuy wane ne dañ jaay li nga xam ne moom moo nekk pétrole yom euh, pétrole bi ak li nga xam ne mooy diw bi ci anam bu nga xam ne réew mi duñ ci gis suñ bopp waaw ñu ñu ñu leeral rek waaye euh, foog naa ne tamit day am solo ñu jàpp ne ne waxaguñ ne sax Gambie am nañ li nga xamante ne mooy euh, pétrole ak yooyu waaye comme yii exact lii dafay am solo pour ñu ñu leeral waaye tamit ñu teel mu tàggoo nguur gi dañ lay ay euh, because ñu ngee ñu ñu ngee ut mm-hmm. am yaakaar ne mun na am ci jamono tamit comme euh, Sénégal nuñ ko amee ñu ne réew yi tamit am ko ci ci Afrique te ñu nekk Sénégal sorewuñ amaan na euh, moom tamit mu ngi si suñu réew bu ñu ko saacee nag be ba jot si na fekk am na sarta yuñ teg li nga xamante noonu la ñoo doxalee yëf yi te modèle bii nii foog naa ne dina bokk ci li nga xam ne dina dimbale réew mi ci taxawaay boobu waaye tamit ci beneen boor wax méngoon ak doxalinu jamono waaye damay jàpp ne rek tamit lii bu mel ni bu amee ñu dugal ci xaalis dépense ko nay day am solo ñu tegee ko ci li nga xamante ne beneen nguur bu ci ñëw sax doo ko mun a teel a génnee noonu waaye da ngay gis ne nguur ñëw defar dara jàpp ne loolu moo ci gën bu demee rek keneen bu ñëwee fexe jàpp ne loolu gënul moom tamit dana indi leneen lu bees est-ce que foog tamit loolu euh, dana dina nekkal lu ci war a bàyyi xel xam nga loolu yëpp jiital sa intérêt ba mu ëpp la fàtte li nga xam ne mooy intérêt su réew mi bu dee yow da nga jàpp ne li fa nekkoon intérêt su réew mi la nga ñëw bëgg méngale nga ñëw bëgg méngale ak li nga xam ne moom moo nekk sa interest ci doxalin bi. Mhm. loolu dina taxaw doon lu nga xam ne taxaw seetlu daf ci am wax nga ko tey buñ jàppee ne li nga xam ne moom la indi rivage depuis 2012 dafa am loi yu fi nekkoon. te loola moo ngankoon doxalinu pétrole bi ak li nga xam ne moom moo nekk énergie secteur bi bu fekkee tey jii moom ñëw nañ ñi am jiixi jaaxa ci ne am na wala amut waaye li ñuy ñaan rek mooy ne li nga xam ne moom lañ mébét te am gis-gis bi mooy ñi gis li nga xam ne mooy diw bi ak essance bi ci biir réew mi. Mhm. waaye loola nag dafa am lu koy jiitu mooy xoddeeku ca balaa ngaa lakkle mooy comme niñ ko def jël saytu doxalin yi nga xam ne ak loi yu nga xam ne moo koy. aar. Mhm. ba ëllëg lu ci munta feeñ da ngay sukkandiku ci loi yi fi nekkoon ne. bañ amee njort ne mu ngi fi am na luwaay yu ñu tegoon kon képp ku nga xam ne gis nga ko da ngay daw doxal luwaay yi réew mi mun ci gis li nga xam ne moom moo nekk boppam loolu mooy njort buñ jàpp ne feeñ na ci liñ am gis-gis ci ne loi yiñ teg balaa ñoo gis li nga xam ne mooy pétrole bi ak essence bi. am nañ ci njort bu rafet ne loolu mun naa jural réew mi beneen interest